Euh, tey ñoo ngi fii euh, CM annexe LTAB ndax dañu leen a may six ordinateur fixes ak accessoires yi ci jëm yëpp donc li tax ñu def ko mooy association bi ñu nekk a 3 dafa nekk association boo xam ne dafa dajale jurbeluwaay yi nekk ci jurbel ak yi nekk ci àdduna bi yëpp ndax ñoom ñëpp fi lañ jàngee fi lañ génnee mais dañoo gis retard bi jurbel yi jurbeluwaay yi di am ak aussi difficulté yi jurbeluwaay yi di am ci côté informatique ndax danga gis CM wala collège yu amul euh, salle informatique aussi ci côté fourniture scolaire ndax dafa am quelques euh, familles démunies yi fi nekk mais aussi dans l' animation culturelle et l' animation des jeunes moo tax association bi euh, jël jël initiative mu dote biñ liggéey ak ñoom ak principal beeg ñëpp ñi nga xam te ñoo ngi ci école bi jël initiative biñ leen joxee ay fournitures scolaires daaw ren ñu dote leen ay matériel informatique yoo xam ne dina aider élèves yi mu mën a relever tuuti seen seen seen niveau ba nga xamante ni dinañ gën a mën a compétitif au niveau de l'extérieur. bokk na ci plan action bi tamitam ñu fexe ba kuuru école bi maanaam ginnaaw bi nga xamante ne ni ci ginnaaw classe yi. ñu fexe aménagé ko ba nga xamante dinañ fa def li ñuy wax parcours sportif nga xamante ne nii ku bëgg a tàngal sa yaram defar sa yaram mën nga faa jaar ak euh, ay conférence religieuse ak conférence publique yoo xamante ni tamit dañuy euh, dañ koy def surtout ci xale yi nga xam ne dañoo am diggante fukki at ak ñett ba fukki at ak juróom benn juróom ñaar nga xam ne diggante boobu noonu dafa xaw a jafe pour ñu téye leen ñu waxtaan ci ak ñoom yee leen ci ba nga xamante ne xëy na am na yu bari yoo xam ne mën na leen a gàllankoor yooyu noonu ñu mën koo mën leen cee yee ba mën leen cee saafara. ay mébét la nag ay pexe la ñuy yor ak xalaat jéem a wuuti pour que su ñu fiy jóge tamitam fii ak ñaari at ndax jàpp nañu ne suñu defee ñaari at ba def fi loo xamante ne gis nañu ne lii lu am njariñ la ñu abal ñu naan ñu ñëw jéem ndax xam-xam moom ak man-man new kenn nit kese. Ah, waaw kontaan rek vraiment wax na ko sama discours sax vraiment je suis très content bon bi may bi def bi ma bi may def discours bi ci ci euh, kii bi la la la terminé maanaam ni ñu don don wu daa daw yi xam nga ne daw association bi mayoon nañu trois cent mille ensuite may ñu un lot de fourniture scolaire une valeur de deux cent mille on savait au total cinq comme ni ma ko expliqué ci deux trois cent mille yi lañ jënd benn vidéo projecteur nga xam ne prof yëpp koy soxla pour faire dérouler leur cours ensuite deux cent mille pour les fournitures on a on a dressé une liste des élèves nécessités on leur a on leur a la ñu ko gérer te bii aussi c'est c'est très simple on installe les machines dès demain ou dès la semaine prochaine on va commencer à, dérouler les cours. waaw école bi moom partenariat bi signé nañ ko vraiment joxoon nañ leen fourniture scolaire ak ay vidéo projecteur euh, ni ñu ko géré woon ak retour bi ñu ci amoon moom vraiment neex nañu lool moo tax ñu continuer ñu continuer collaboration bi ren nit jot nañu lettre principale bi jot nañu aussi lettre président APE bi dinañ ci liggéey lépp lu ci association bi mën dina ko def association bi aussi euh, ci biir njaareem ñu ngi fiy liggéey ndax euh, CES lycée CES Mamadou Moustapha Mbacké war nañ fa inaugurer benn salle informatique boo xam ne association bi moo ko réfectionné moo ko doté moo ko équipé def fa lépp boo demee CM Pikine aussi war nañ fa inauguré aussi benn préau boo xamante ne nii dafa nekk benn espace boo xam ne élèves yi bu ñu génnee récréation daawuñu am ker bu ñu taxaw association bi moo ko financé entièrement ak donateur am yu mel ni Saga Consulting ak aussi membre yi nga xamante ne ni dañuy cotiser euh, pour ñu mën a def loolu